شهر من شهر الفضيل شهر رمضان واليوم أتينا لتلبية الدعوة واللقاء بالشيخ الجليل وخليفة المسلمين في طوبة وسعدت كثيرا للقائه والحديث معه وأدركت عندما تكلمنا مدى العلاقات الوثيقة التي تربطنا ومدى حبه للمملكة العربية السعودية سواء كانت حكومة أو شعبا وعربت له أيضا مدى حب المملكة وشعب المملكة وحكومة متمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهم الله وإلى رعاهم في تقوية هذه العلاقات بين المملكة وبين السنغال واليوم وبعد الآن زيارته توجهنا للقاعة للجامعة التي يشيدها خليفة المسلمين منطقة إمباكي وعجبت كثيرا على هذه البناء حيث البناء كان متطورا ويعملون على قدم وساق وهناك أعمال جليلة ولنشر العلم وحتكون إن شاء الله هذا المشروع بؤرة قوية لنشر العلم في جميع أصقاع السنغال وخارج السنغال وانطباعي الجميل جدا لأنه شاهدت أيضا المسجد الكبير الذي بجوار منزل الشيخ مباكي المكان والشعب ذكروني بكثير في أحد مدننا في السعودية المدينة المنورة شاهدنا الطيبة بالشعب السنغالي وحفاوة التكريم واستقبلونا استقبالا جيد ونحن نشعر بسعادة لتواجدنا مع خليفة المسلمين Muntaqa Mbacké mm, na moom mi ngi tudd Youssouf Diazar teewal fii euh, le serviteur de deux saintes mosquées du roi Salman Ben Abdul Aziz jot nag invitation bu jógee ci suñu kilifa gu mag gi di cheikh euh, Mouhamadul Mourtada Mbacké di xalif général euh, des Mourides waaye moom nee du ko tuddee xalif général des Mourides waaye da ko tuddee xalifatul muslimin lépp la ko la ko tuddee nee na moom xalifa jullit ñëpp la Euh, bi mu toogeek moom nee na li mu njëkk yéeg mooy euh, wax dëgg yàlla tedd gu góor gi tedd moom Cheikh Mouhamed moom Muntaxa ak bëgg gu bëgg Arabie Saoudite te bu bëggee Arabie Saoudite dara taxul mu bëgg ko lu dul Makka ak Madina ndax xam ne bu baax a baax relation bi nga xamante ni maamam ja Cheikh Ahmed Bamba amoon na ko ak wóolëreem ba xaritam ba soppeem ba di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na loolu moo tax bi mu waxtaaneek moom yëg yëg na ci moom bu baax a baax a baax kontaan gu xalifa bi kontaan waaye nee na contacté xalifa gi li muy réy réy réy nee na moom mbégteem moo ko raw ndax nee na moom gént la woon ci moom rêve la woon bu mag a mag mu toog bis jàkkaarloog Cheikh Mouhamed Mountakha biñ toogee it nag nee na wax dëgg yàlla dama yaakaaroon ci moom lépp gis na ci moom lu ko ëpp foofu lañu toog waxtaan wax dëgg yàlla saafonte euh, góor gi wax euh, Cheikh mun taxaa wax wax dëgg yàlla yëg-yëgam moo ne relation yu am solo yi nga xamante ni moo nekk ci diggante euh, Arabie Saoudite ak Sénégal diggante yoonu murit ak fi nga xamante ni mooy Makka ak al madinatul munawara nee na ba mu fa jógee it tamit nag wax dëgg yàlla yemu ca waaye sëñ bi dafa amoon mbégte lool ci mu dem seeti chantier bu mag bële nga xamante ni mooy université ba nga xamante ni ñu ñu ngi koy amal fii ci Touba mu dem ci université ba euh, ba mu demee nee na yéem na ko wax dëgg yàlla nee na foogul woon dina fekk vraiment liggéey bu amee solo noonu mu nekk liggéey boo xamante ni xam naa ni histoire dina ko retenir ndax euh, Euh, liggéey la boo xamante ni dina nekk manaara dina nekk occasion pour jàngal doomu jullit ñi waxuma rek ñi nekk Sénégal waaye ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew yëpp sama li ma yëg daal wax dëgg yàlla mooy yëg-yëg kontante ak mbégte bu baax a baax ci ñëw gi ma ñëw Touba rawatina nag bi ma jógee kër xalifa bi jóge ci université bi muy projet bi ba romb jumaayu Touba nee na bi ma xoolee jumaayu Touba daa mel ni Madinatu Munawwara laa nekk nee na damaa yéemu ndax nuróo gi ëpp na loolu nag wax dëgg yàlla nee na dugal na mbég mbég mu rëy rëy rëy ci man euh, nee na yi tamit toxal na nuyoo euh, ki nga xamante ni mooy le serviteur de de Sainte Mosquée di le roi Salman Ben Abdul Aziz euh, jottali na ko Cheikh Mountakha jottali na ko tamit nuyoo ki nga xamante ni mooy le prince héritier di al amir Mohammed Ben Salman bi nga xamante ni tey jii moo topp ci bàyyam ba foofa ca Arabie Saoudite nee na lii daal wax dëgg yàlla mooy yëg-yëgam bu njëkk pour tontu sa question. المملكة دائما تمد يد العون والمساعدة للسنغال منذ تأسيس الدولة السعودية فحقيقة أنا كوني أني توني أتيت إلى السنغال في أقل من شهرين فيجب أن استأذن أول شغلة وأرسل لا لا مقر عملي ونشوف إيش إيش الإجراء المتبع حيال ذلك. مول سيكي ساكا ني Euh, Arabie Saoudite comme ni ngeen ko xamee mësta deñ di joxe contribution yu am am solo di dimbali Sénégal ak réewu Afrique yëpp Sénégal dépp ñu sosee euh, royaume d'Arabie Saoudite ba tey nee na li jëm ci projet yi nag sama ñëw bii ma ñëw li tax moo am solo mooy gis naa xool naa ndaw laa loo xamante ne bi dañ ma fay yebal bu ma demee man aussi léegi dinaa xool ba xam léegi nan la ñuy mën a def yan taxawaay la ñuy mën a taxaw ba xamal autorité yi di nga xamante ni moom mooy liggéey bu ràññiku bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi شكرا كثيرا وسعيد كثير بوجودني معكم في مدينة طيبة رمز الإسلام هنا في السنغال وسعيد أن كمان أيضا أكون على ضيافة الشيخ خليفة المسلمين الشيخ منتقى مباكي وإن شاء الله سوف نكون سويا وإلى رمضان كريم kontaan ci yéen nee na ñëw bi ngeen ñëw wax dëgg yàlla lu lu rëy ci moom la mi ngi feddaliwaat encore wax dëgg yàlla kontaanteem ci kilifa gu tedd gi nga xamante ni tey jii moom la rencontré muy Cheikh mun Mountakha Mbacké di bég lool wax dëgg yàlla ci peuple sénégalais di bég ci ñi nga xamante ni ñooy waatubaa ci teeru bi ñu ko teeru ak teral gi ñu ko teral di ñaan yàlla ñëpp koor gu ñu nangu yàlla na yàlla nangu koor gi te def ko tuyaaba ju yaatu tasaare ko ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp